asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki internautes yi mbokki téléspectateurs yi nuyu nañ leen di wax ne dal leen ak jàmm ci seen ñetteelu numéro xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee ci biir weeru koor 1443 ginnaaw gàddaay gi di atum 2022 fii ci grande mosquée bu Touba mbokkite xibaar yi dañ koy euh, dooree ak nemmeeku gi nga xam ne Serigne Issakha Mbacké moom Serigne Bassirou amal na ko fii ci grande mosquée bu Touba ci liggéey bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moom la ñuy amal mu jot nemmeeku nag euh, liggéey yi nga xam ne moom lañ fi euh, def bokk na ci studio bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji nga xam ne fa la ñuy amee retransmission en direct mboolem activités yi waaye mu nemmeekoo it euh, bërëb bu fajokaay bi ak fi nga xam ne fa la ñuy sàkkoo xam-xam moom Serigne Isaaxa Mbacke moom Serigne Basiru ginnaaw boo xam ne nemmeeku na li nga xam ne moo jëm ci ndog yi nga xam ne moom lañ fiy amal bés bu yàlla sàkk nga xam ne moom la ñuy jagleel mbooleem jullit yi yëkkati na ay kàddu yu am solo soññewaat ci taxawaay bi nga xam ne mbooleem jullit yi war nañ ko am ci ndog yi ndax dana gën yaatu ca kanam ndax li nga xam ne moom la ñuy lal fii ci jumaa ji danañ dem ba dana gën a mën a yaatu moom Serigne Isaaxa it soññi na bu baax a baax ci fréquence bi nga xam ne moo jëm ci MK TV di chaîne bi nga xam ne moo nekk fii ci grande mosquée bu Touba ñu ànd teelu kàddu yi Serigne Isaaxa Mbacke moom Serigne Bassirou. nii ngeen ko defee nii ngeen ma ko lool ñëw gi tey ñëw gi doon lu simple yàlla def rek ma amoon yéene eh, ba ngeen ko tàmbalee ba tey xam naa leen la ko yàlla dogal dogal. waaye ba ngeen ko tàmbalee ba tey ma doon am yéene yi lu mu tuut tuut bu nga xam ne dinaa ko mën a dog seeg yéen loolu nag ren la ko yàlla yi doog a dogal nu gën di ko ci sant bu baax a baax euh, loola itam bi ma ñëwee itam fekk naa ci fekk naa fi leneen loo xam ne nii sax nag wax dëgg yàlla euh, kawe na sama njor ndax booba ndog yi rek ma taxoon a jóg moom moo ma yéemoon lool niñ ko organiser ba mu mu waroon a am bu yàgg euh, ba am ndax euh, comme ni ma koy waxee ba ma gisee euh, diggante Makka ak dina ñuy defal loolu laa jàpp ne sëñ Touba jubaay sëñ Touba ji yeyoon lu mel noonu kon nag euh, bi ngeen ko defee alhamdulilah mooy ne kon xam naa leen loolu la ko sëñ Touba bëggee woon kon nag mën def nu ci yàlla boole bu fekk ko itam sant yàlla rek lay doon kon nag noo ngi leen ciy sant di leen ci gën a ñaax ci liggéey bii ngeen nekk ci ndigal sëñ Saliou moo xam ne itam moom ku ne xam na. ni ko ni ko ni ko lu mel noonu lépp ñore te sëñ Saliou itam dafa xamoon lool wóor na ma ne xamoon na ne noonu danañ ko def defi makk xamoon na ne noonu dañ ko def defi Madina kon nag xam naa xam naa ne yéene woon na lu mel noonu itam am ci jumaa ji kon nag alhamdulilah ci ci ci ci ndigalam ñu fi kon alhamdulilah day yokku rek kon li ci am solo mooy noo ngi leen ciy gën a sant di leen ci gën a ñaax te xam ne noo ngi ànd ak yéen ci liggéey bi di sant nag bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak yéen ci liggéey bi ndax bu du woon bokki taalibe yi itam luñ ko am am yéene duñ ko duñ ko duñ ko man noonu kon nag bokki taalibe yi nekk ci biti ak yi nekk ci biir ñoom ñëpp kenn ku ne di ko xalaat ànd ak yéen ci liggéey bi di ci def kenn ku ne la nga man ba lii ñuy def tey ñu man ko loola ñooñu itam ñoo ngi leen di beral cant di leen ñaax itam ñuy dolliwaat kenn ku ne Eh, gën a laxasaayuwaat ci liggéey bi ba moom daj ba xam ne yéene ji mooy ban dem jumaa ji yëpp ñu di ko mën a lal te mën naa nekk te yaakaar naa ni duutu yàgg kon nag loolu lépp ndax loolu lépp njariñ la eh, do ku ne xam na ne ku wóor nga dagal ko la ca nekk ci tuyaaba ku ne xam na loolu ñaareel ba ku ne xam na ne Tuubaa gi itam bari na ñu koy soxla ko loolu nii ngeen jëlal naa Euh, ndogo yi nga xam ne lenn la ci li nga xam ne moom ngeen def ci jumaa ji waaye saytu gi ngeen koy saytu itam yàlla te te te loolu lépp jóge ci def ngeen di ko def ci ay ndigal lu ci sëñ Saliou ba nëga kon nag loolu itam alhamdulilah euh, kon nag saytu yooyu itam yéen a koy def ni mu bare ndax am na ay xew-xew yu bari yu fi jaar yoo xam ne bu dul woon ak saytu gi ngeen saytu kon xaj na sëñ bi du ci am la ko la ko gënal kon nag saytu yooyu lu ci am solo la ci ni ngeen def ci penc meeg jumaa jeeg ak li leen sëñ bi dénk ngeen di ko saytu kon nag loolu kon nag loolu itam lépp lu nga xam ne dana tax loola gën a mën a am mooy li ngeen ma doon wax ci xaj na euh, télévision bi nga xam ne fréquence télévision bi ànd loolu gën a xamal nit ñi gën a xamal li ngeen di def loolu lépp la ci am solo lool nit ñi te gën a mën a xam liy dox ci jumaa ji gën a xam lii ndax jumaa ji moom nii la demee murit yëpp ko def ci seen ci ci seen bànneex ci seen pasteef ci seen bëgg sëñ Touba bëgg lu baax kon nag loola itam li ci des yëpp ni noonu la kon nag amoon fréquence boo xam ne da ngeen ci mën a nit ñi dañu mën a siiwul di xam li nga xam ne mooy dox ci jumaa ji euh, te te loola itam ngeen gën ko yaatal lu jëm ci njàng mi lu jëm ci conférence lu jëm ci loolu itam day amal nit ñi njariñ day amal ñëpp njariñ kon nag loolu itam ñoo ngi ñaan yàlla def ko ci lu mu gën a gaawee mbokk yi ba léegi ci nemmeeku yooyu lañuy des ndax kilifa yu takku ñu ngi ñëw di nemmeeku liggéey bi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di amal ci biir weeru koor gi ñëw di ko ànd ak ñoom kenn ci ñoom Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne bu ànd ak kilifa yu takku moom it ñëw nemmeeku li nga xam ne moo jëm ci ndog yi nga xam ne moom la ñuy lal ci yokk yi fii ci euh, jumaay Touba mu nekk visite bu yaatoo yaatu boo xam ne leeral nañ ko lépp loo xam ne moom moo jëm euh, ci ndog yi muy image yi nga xam ne moom ngeen euh, jàkkaar lool lépp nag Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Sonia bu rafetlu ko bu baax a baax ginnaaw bu mu ko li nga xam ne moo jëm ci ndog yi ci la dem ci fi nga xamante ni moo di bërëbu fajokaay bi ginnaaw it bi mu fa jugee. dem na it euh, nemmeeku li nga xam ne moom moo jëm ci installation yi nekk ci biir euh, jumaa ji muy sonorisation bi di rajo yi nga xam ne moom mooy euh, wasaare lépp loo xam ne dafa jëm ci not yeeg la ci aajowu waaye studio bi nga xam ne moo nekk ci biir juma ji ñu ci amal retransmission en direct mbooleem activités yi waaye julli juróom yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk ñu ngi koy retransmettre en direct ci chaine bi nga xam ne moom moo di MK TV waaye moom Serigne Amsatou Mbacké moom euh, Serigne Souhaibou nemmeeku na it bërëb bi nga xam ne ci la ñuy sàkkoo xam-xam ak délégation bi nga xam ne ñoom la àndaloon. mbokk yi ba léegi euh, xibaar yi fii ci euh, grande mosquée bu Touba ci biir weeru koor gi commission sociale bu Touba ca kanam ci liggéeyub social bi nga xam ne ñu koy amal ci biir weeru koor gi. di dajale ay addiye yoo xamante ni ñu ngi koy tasaare ci dëkk bi di ko jàppale ñi nga xam ne dañ koy yittewoo lool ci loolee ñëw nañ am taxawaay bu am solo boo xam ne ñëw nañ ànd kook daayira mu xadda xaddamatul xidma ci njiital commission sociale bu Touba ci di Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fatah moom Serigne Fallou ginnaaw loolee am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko mu jëm ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi. di daayira muxaddamatul xidma di amal ci biir weeru koor gi ñu ànd teewul ay kàddoom daare kaamil ji nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji itam nga xam ne ci dëgg-dëgg commission bi moo ko taxoon a sosu yéene yi nga xam ne am nañ ko ak naal yi nga xam ne am nañ ko ci ñoom ñu dem ba ñoom ñëpp ñu àgg ci yoral leen seen i kër lañ fa yittewoo lépp loolu tamit ñu ngi leen koy ñu ngi ko ñu ngi leen koy sàkku bu baax ngeen ñaanal ñu ko bu baax baax wane gii ñu koy wane itam jubluwuñ ci dara lu rut dañuy wax ne Touba Ca Kanam moom laaj luñ am def ko fu ñu xam te nit ñi ñaare buñ la joxee seen alal tamit dañuy yebal seen bët mu topp mu topp mu topp alal ja kon tamit dana baax nga wan leen fan fan koy def waaye xam nañ bu baax ne eh, ki nga xam ne mooy joxe ci yoonu yàlla loxoom day jooram càmmoñ ba sax warut a xam la muy joxe. waaye nag allazina yunfiquna amwaalahum bi layli wa nahaari sirran wa alaaniya ñoom ñaar ñëpp falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun fondation muxaddamatul xidma ba nga xam ne mu nekk ci réewum États-Unis di benn ci bàngaasu daayira muxaddamatul xidma bi nga xam ne moo nekk fii ci grande mosquée bu Touba ñoom it dañuy am taxawaay bu am solo boo xam ne ñu koy amal ci biir weeru koor gi it yeneen activités yi nga xam ne moom la daayira muxaddamatul xidma di amal fii ci jumaay Touba ñoom nag am nañ taxawaay bu am solo ci biir weeru koor gi ci àddee joo xam ne ñëw nañ jébbal ko waa daayira muxaddamatul xidma fa yéene ànd ak ñoom ci mbooleem li nga xam ne moom la ñuy amal fii ci juma ji mu jëm rek ci taxaw mbooleem jullit yi waaye liggéey boobu ki nga xam ne moom moo di Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Moxtada ànd kook ñoom am ci taxawaay bu am solo. mbokk yi ba léegi ci xibaar yi soxna Juma mi nga xam ne mooy waajuru Serigne Moxtada moom Serigne Fallou ñi nga xam ne ay sëtam lañ ñëw nañ fii ci jumaay Tuubaa ji ak euh, ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu am solo bi ñoom nag ñu ñëw indi fi addiye am solo fa yéene ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne saa su ne duñ dañ di ko def di ko taxaw mbooleem jullit yi ak bërëb bi nga xam ne ñu ngi koy saytu saa su ne sëti ki nga xam ne moo di soxna juma yooyu am na kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko ñu ànd teewlu ko. ginnaaw bi ñu amee ndigalul ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jaar ci sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Abdoul Fadal jaar ci ak Cheikh Mouhamadul mi nga xam ne mooy suñu jëwrin ci suñu diggante ak soxna Juma Sëy jaar ci Cheikh Amadou Yidali jaar ci soxna Maam Faati mi nga xam ne ñoom la sëriñ yi soxna Juma Sëy njaboote waaye jaare ci buntu ki nga xam ne moo fi nekkal way juróom wu tedd wa di sëriñ Ibrahima Sëy di sëriñ Soorol Sëy ñu indi tey jëf ju tedd joo xam ne indi woon nañ ko fi daaw ren ñu ñëwaat ngir yeesalaat ko ci ñu njiital sëriñ Modou Moustapha Mbacké moom Cheikh Mourtada moom Cheikh Fadal ak mboolem njaboot gi ñu àndal yëpp. Cheikhul Mourtala wax ne bu ñu ñëwee nañu indi addiyee ji teg ko ci loxol mu xaddamatul xidma ñu dugalal ñu ko ci barab bu tedd bii nga xam ne mooy barab bi bi bi gën a bi gën a rëy tey ci yoonu murit muy symbole boo xam ne ku ne xam na ne mooy symbole yoonu murit di jumaay Tuubaa ñu tuddee ko soxna su tedd jii nga xam ne moom lañ indi jëfam tey mën nañu ne du suñu jëf jëfi soxna jumaa la ñu indi tey dañu yeesal jombul nag kuy liggéey ku ne sañ ngaa am looy bëgg di ko ca fas wala nga am looy ragal di ko ca jañ waaye ñun bu ñu taxawee bu ñu taxawee fii tey du ñu bëgg dara du ñu ñot dara du ñu jañ dara ndax ñot di ak jañ mi ngi ci loxol Serigne Touba mii ci suñu ginnaaw te gëm nañu ne fépp fu lu baax nekk ab lonkam joroon na ko te dana ko lonk ba teg ko suñu loxo fépp fu safaan ba nekk itam ab dàqam joroon na ko te dana ko daq ba duñu ko gis duñu ko dégg suñu liggéey nag fan lay jëm mooy saa su ñuy xool bëgg-bëgg yi nga xam ne moom lañ suñu wayjur yu tedd ya ak daan doxee mooy pas-pas bu wér dëggal seen diggante ak Serigne Touba mooy li Cheikh Abdou Fadal wax ak taalibe mu daana wax ne aka yi li muy bëri bëri bëri boo faatoo ba ñu dugal la ci biir bàmmeel genn aka dong moo la mën a jëriñ ci biir bàmmeel aka amoon alal mënu laa jëriñ ci biir bàmmeel aka amoon kër mënu laa jëriñ ci biir bàmmeel aka amoon njaboot mënu laa jëriñ ci biir bàmmeel aka ji la mën a jëriñ ci biir bàmmeel mooy ak amoon taalibe Cheikh Abdoulaye Lahad daan wax ne suñu taalibe gii nañ ko jël def ko ci suñu bëñ ba ñuy wax ruug seen te bañ a nga bañoo ko yóbbu cosaan loolu yi nga xam ne moo tënkoon soxna juma ba way juróom wu tedd wa maa ko jumaay Touba nga xam ne 1926 la sëñ bu mag bi joxe ndigalul ñu sanc ñu taxawal jumaay Touba 27 soxna jumaa sëy gane adduna waaye juróom wu tedd wa di maam Ibrahima sëy tuddi ko jumaay Touba te booba jumaa taxawagut boobu ab pàkk rek moo fi nekkoon ñu di ko woowee pàkk bi bañ taxawal jumaa ji ñu di ko woowee jumaa kon loolu pas-pas moo ko mbokk yi waa kër Serigne Cheikh Aliou Mbacke am na délégation boo xam ne yebaloon na leen fii ñu ñëwoon fii ci grand mosquée bu Touba ci biir weer koor gi doon indi euh, barkeelu goo xam ne moom lañ jébal daayira Muxaddamatul Xidma di leen jàppale rek euh, ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne moom la ñuy amale ci biir euh, jumaay Tuubaa ji rawatina ci biir weer gi ji taxaw mboolem julli li nga xam ne ak fu ñu mën di bàyyeekoo di ñëw ci jumaa ji ngir amal fii li nga xam ne moom moo di ndog yi ak yeneen yi ci aajow loole nag di taxawaay bu am solo boo xamante ni waa kër Serigne Cheikh Aliou mbake def nañ ko ànd kook euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy daayira moo xadamatul xidma mbokk yi ba léegi bokk na ci nemmeeku yi nga xam ne ñu koy amale fii ci euh, grande mosquée bu Touba muy waa daayira xuratul ayni bu waa kër Serigne euh, Soin bu mbake ñoom it am na délégation bu am solo boo xamante ni ñëw nañ fi visiter mbooleem li nga xam ne moom la daayira muxadamatul xidma di amal fii ci euh, biir weeru koor gi ci jumaay Tuubaa ji moo xam ndog yi la ak euh, li ci aajow ak yeneen bërëb yoo xamante ni mi ci biir jumaa ji délégation boobu nga xamante ni mooy délégation xuratul ayni di ay euh, borom yi xam-xam waaye di itamit ñenn ci njabootu sëriñ son bu gi am nañ nemmeeku euh, gu am solo goo xamante ni def nañ ko waaye rafetluwaat bu baax a baax taxawaayu daayira mu xaddamatul xidma ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci euh, grand mosquée bu Touba. mbokk yi Foncap bi nga xam ne mu ngi nekk ci réewum États-Unis ñoom indi nañ fi addiya ju am solo ñëw ànd kook daayira mu xaddamatul xidma ci biir weeru koor gi. mu nekk euh, addiya joo xam ne dafa jëm rek ci euh, budget bi nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma dañ koy amal euh, mu jëm ci weer biir weeru koor gi lépp di ay barkeelu wala ay xéewal yoo xam ne dañ koy baaxee mbooleem jullit yi loolee nag di barkeelu boo xamante ni FONCAB bi nga xam ne moom moo nekk ci réewum États-Unis amal nañ ko jëbal ko waa daayira Muxaddamatul Xidma kenn ci ñi nga xam ne ñoo indi woon addiya jooju yëkkati nay kàddu ñu ànd teewlu ko mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina waa ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Amérique du Nord États-Unis ak Canada FONCAB mooy fondation Cheikh Ahmadou Bamba euh, ñu ngi leen di ziare bu baax a baax waaye tamit nekk fii ci euh, enceinte jumaa Cheikhul Khadim ji muy jumaa Touba fekk fi waa Muxaddamatul Xidma mi nga xam ne sëriñ Afi Bousso moo ko jiite waaye jëmi ji toog muy sëriñ Abdoul Ahad Bousso xam naa min nañ ko lool ñun foofu ci Amérique ñu invité woon ko Muxaddamatul Xidma ba ca Detroit moo ko sëriñ kon nag euh, liggéey bi nga xam ne moo ngeen ma joxoon jébbal naa ko euh, sëriñ Abdou Lahad ak waa Moukhaddamatoul Khidma yi ma fi bokk fe fekk euh, te wuñu bi nga xam ne mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk foofu def ci liggéey bu am solo. liggéey bi nga xam ne moom la daayira Moukhaddamatoul Khidma di amal fii ci jumaa ji nekk na liggéey bu am solo boo xam ne kilifa yi duñ dañ di ñëw di ko nemmeeku bokk na ci délégation boo xam ne ay médecins lañ maanaam ay docteurs yoo xam ne. ci njiital docteur Souran mi nga xam ne moo jiite hôpital bu yees bi nga xam ne moom lañ taxawal fii ci euh, Touba àndoon nag yeneen docteur yoo xamante ni bokk na ci Serigne Abdou Lahad fay ñu ñëwoon doon nemmeeku euh, liggéey bi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di amal fii ci euh, jumaa ji jotoon na nemmeeku li nga xam ne moo jëm ci ndogu yi ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne moom lañ fi amal ginnaaw loolee docteur Souran am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko santaat bu baax a baax daayira mu xadamatul ma ci seen taxawaay waaye soññee ci liggéey bi ñu ànd teewlu ko. Euh, di nuyu ñëpp euh, di ziyaare kilifa yëpp euh, di am mbégte ndax léegi maa ngi koy wax sëñ bi ma ñëwee fii dama man na ku jommi rek ndax xaw ma ne woon lu deme nii am na fi daan naa dégg ay ndogu rek waaye xaw ma ne woon nii la amee solo xaw ma ne woon nii la yaatoo. xam ne xaw ma ne woon it nii lañ ko sellale ndax euh, ñun bu ñu duggee dañuy seetlu euh, ay docteur lañu lu ñuy njëkk seetlu mooy li nga xam ne moo jëm ci suñu liggéey gis naa ne bi ma duggee euh, mel na kuy xuus jëm ca xéewal ya dañ ma xëcc ne ma fii la ñuy raxasoo te loolu lu ama am solo la loolu wax dëgg yàlla am naa ci mbégte lool Euh, gannaaw loolu itam gis naa ne euh, fi ñu teg xéewal yi la ñu teg ay gel pour nit ñi mën a euh, ko jëfandikoo bu ñu paree balaa ñuy tàmbali sax leneen li itam mooy jëfandiku bi sell na lenn lu ci nekk dañ ko def ci ay boyet yoo xam ne mënuñ ne weñ dina ci mën a tag ba yàq ci dara mënuñ ne lenn mën na ko gaar ba wér di war ci mën a jóge leneen li nag moom xam naa ne bu ma ko waxee dañ may simmi rek ndax xéewal yu am solo la yoo xam ne yaakaaroon naa ne mbooloo mu toll nii duñ ko mën a defee noonu euh, waa daayira bi nag sama ay wëllëre lañu ndax yàgg nañu liggéey bu yàgg jamono yi may nekk ci médecin chef de district ñu daan euh, liggéey ci wàllu barab yii dama leen daan yónnee ay eau javel ak ay grésil ngir taxawaay yu am solo yu ñu fi doon am euh, gannaaw gi nii sax feebar bi bi mu amee am nañ ci ay jokkoo yu am solo waaye gis naa ne euh, mbooleem tegtal yi ñu leen joxoon mbooleem euh, xalaat yi ñu leen ci joxoon ba léegi ñu ngi koy wéyale kon nag wax dëgg yàlla euh, ñu ngi ciy bég lool di ñaan nag suñu borom yokk gën dëgëral seen taxawaay te itam ñun de suñu wàllu bopp dinañ ci gën a jàpp ndax am na loo xam ne umpoon nañu sax waaye bu soobee yàlla dinañ ci gën a jàpp ak ñu ñu àndal liggéey bi. yeneen euh, kilifa yoo xam ne ñëwoon nañ fii ci euh, jumaay euh, Touba ji bokk na ci administration bi muy kilifa yi nguur gi nga xam ne préfet bu département bu Mbacké ànd ak sous bu Ndaam ak yeneen kilifa. ñoom it ñu ñëwoon fii ci jumaa ji ni nga xam ne noonu la ko yeneen kilifa yi di defee nemmeeku liggéey bi ànd ak ñoom liggéey bu am solo bi jotoon na nemmeeku nag li nga xam ne moom moo jëm ci ndogu yi ak ni nga xam ne noonu lañ koy amalee saasu ne ginnaaw nemmeek googu ak taxawaay bi nga xamante ni moom la daayira Muxaddamatul Xidma di amal ki nga xam ne moo di préfet bu Mbàkke am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko ñu ànd teewlu kàddoom. commencé nuyu sëñ tax xalif général des Mourides di nuyu it bépp njabootu sëñ Touba di nuyu kilifa diine yi nga xam ne que moom laa fekk fii tey euh, mu nekk nag euh, la nga xam ne que mbégte la euh, pour ñëw fii tey. Euh, bokk ak yéen ndogu bi mu euh, ñu ma ànd a seex nag euh, sous-préfet ak sama adjoint ak adjoint mais également chef de service départementaux yi dañu ñëw nag pour ñëw nemmeeku liggéey bi nga xamee ne que bu am solo bi nga xamee ne daayira bi mu ngi koy def waaye profiter ci occasion bi pour vraiment delloo leen njukkal et puis di di ñaan ndaxte li ñu gis fii tey moom vraiment euh, li ñuy tuddee organisation ci boppam moom na ñu gis euh, mu nekk lu am solo parce que lépp bépp mbir ba nga xamee ne que nit daf koy def su amul organisation defe naa du sotti gis nañ ne que euh, daayira bi début koor ba ba koor gi jeex chaque jour dina am ay ndogu ya nga xamee ne que moom day jagleel mbokku jullit yi et loolu d' abord euh, su nekk dañuy wax yool bi nga xamee ne que moo si nekk rek kenn xamul nan la toll et euh, di euh, constater it si li nga xamee ne que moom nañu jot a gis fii chaque jour si weeru koor gi dinañ dem quatre mille quatre mille cinq cent ndogu ya nga xamee ni dañ ko distribuer loolu mu nekk lu lu lu lu am solo te loolu li nga xamee ne que moo ko waral rek d' abord mooy pas-pas bi nga xamee ne que moom la. Euh, daayira bi am si li nga xamee ne que moom lay def mais aussi engagement bi nga xamee ne que moom la ñu am si euh, liggéeyal jumaa ji liggéeyal Sëñ Tuubaa mbokk yi honorable député Cheikh Bara Dolly am na addiye ju am solo moom it yoo xam ne indi na ko fii ci euh, grande mosquée bu Touba ànd kook waa daayira Muxaddamatul Xidma taxaw leen ci euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñuy amal ci biir weeru koor gi mu nekk at yi xam ne yabaloon na délégation muy image yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool ñu ñëw jébbal ko kilifa yi mu Muxaddamatul Xidma ñu ànd ak ñoom rek ci taxawaay bi nga xam ne ñoom lañuy ñuy amal ci biir euh, weeru koor gi mbokk yi ñu wéyal xibaar yi fii ci grande mosquée bu Touba ci bisub tàggatu gi nga xam ne amaloon nañ ko fi muy euh, bés boo xam ne dañ doon tàggat imaam yi ci ni nga xam ne noonu la ñuy jiitee Euh, noddukat yi ci ni ñuy noddee ba ci bayaan yi ak lépp loo xam ne jëm na ci ni ñuy saytoo ak toxaw euh, juma loole di euh, tàggatu gu am solo goo xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma dañ ko fi amal saa su ne ànd koo ki borom yi xam-xam ak ay imam ginnaaw tàggatu goo ki nga xam ne moom moo di Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Cheikh Baare Khourédia ak sëriñ Abdou Lahat Mbacke di imam jumaay Serigne moor Diarra bi nga xam ne moo nekkee ci Misra. am nay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko mu jëm ci solo solos euh, tàggatu gi nga xam ne moom lañu amal fii ci grande mosquée bu Touba ñu ànd teewlu seeni kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw ba na sant yàlla sunu borom subhaanahu wa ni di julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nii si nuyu ak siyaar ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal sunu borom dolli ko ni ko Cheikh Imaam ña ngi di wax kulla say ñuntaqa noo ngi sant sunu borom bu baax mi ne xéew na ne fekk jotaay bi jotaay bu dolleeku jotaay bu tawféex te noonu jotaay boo xam ne fi ñu koy deferee rek doy na sant sunu borom fekk ko ku ci yàlla boole rawatina lañ fi doon wax lépp lépp dara génn ci lislaam ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax nag bu ñu sañoon mu gën a jege ndax njariñ la lu wér-wér maa ngi koy fan yéen maa ngi koy wax foo xam nekkuñ fa di wax ni. bi ñu amee ñoom waa Muxaddamatul Xidma ku ne xam na ne wuute nag ba ñu amagut yokk nañ lu baree baree bari ci jumaa ji ndax noonu am na loo xam ne bi ñu doon gonee fi leen fekk lu baree bari ci ay xeetu xuraafaat yi dam ci pénc mi diiwaan yeeg wecceekat yeeg jaaykat yi der yeeg yax yeeg béjjén yeeg dañ ko raxas ba mu set wicc da boo ne cëpp xam ne lii lislaam yi kese fi nekk waaye nag ñu jëmbat nag bi ñu dindee ba lépp set nag ñu jëmbat fi loo xam ne nag moo fi war a nekk bañ ci am ndigal bu yëngatu bañ amagul ndigal defar gi ñu defar sàppe yi boo bayaanee ci ñoom la sosoo daa waaye bayaan daawut am ba ci dogo yi ñu xewal ba ci waxtaan yi ak ni jumaa ji di sete ak ni muy xeeñalu neex ak ni muy féexe lu nañu teg ko ci yoon noose ko ba nga xam ne bu borom dikkoon jëm naa ne ci ñi muy njëkk gërëm lay bokk ñi lay bokk ñu ngi leen waaw ah, dañoo ñëwoon fii ci jotaay bi nga xam ne moom la waa daayira Muxaddamatul Xidma doon woote fii jumaa yi Tuubaa doon fàttalante ak imaam yi ak noddukat yi ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci ci jumaa ak jàkka wax dëgg yàlla ñi ñu woon ñu ko doon leeral liñ fi leeral leer na nañ eh, képp koo xam ne doon nga am ak jaawale boo ko dégloo war nga ci mën a gàgganti eh, kon ñaan rek ah, liñ fi dégg lépp rek kenn ku nekk la nga yoroon ci njuumte te nga dégg ko ci jubbanti suñu borom kàttanal la ba nga mën ko taxawee ñu ngi leen di sant yéen ñi koy jàllale yéen bu baax eh, di leen ñaanal ak kawe ndax li am na solo bu baax a baax. mbokk yi ba léegi ci xibaar yi fii ci grande mosquée bu Touba ku ne xam na ne ndog yi nga xam ne moom lañ fi amal ndigal li mi ngi bàyyeeko woon ci Serigne Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk ay leeram taasu ci barkeem ndigal loolu nag bi nga ko joxee daayira mu xaddamatul xidma soññaale woon na leen ci ñu ba gën a xel ci cet gi fii ci euh, grande mosquée bu Touba euh, ni nga xam ne noonu la ñuy lalee ndog yi nag ginnaaw buñ ndogoo ba noppi ñoom daayira Muxaddamatul Xidma dañuy jël mboole matuwaay yi ngir setalaat bërëb bi ba mu seet wecc te ay matuwaay yu am solo yoo xam ne moom ngeen jàkkaar loole ci image yi nga xam ne ginnaaw buñ ndogoo rek ci saa si balaa ñuy naafi la danañ setalaat bërëb bi ba mu seet wecc ngir euh, sàmmoonteeg ndigal loolu nga xam ne Serigne Saliou mbaake joxoon na leen ko te saa su ne ñu koy matale fii ci euh, grande mosquée bu Touba. mbokk yi ñu wéyalee xibaar yi dem ci résidence Xaadimu Rasuul fi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou fa lay taxawoo koor gi ci di ko dundal bu baax a baax ci njàng mu yaatu mi nga xam ne waa daayira Hizbut Tarqiyyah saa su ne ñu koy ànd euh, ak euh, moom ci teewaayu kilifa yu takk lool am na kilifa yoo xam ne am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fa mu jëm ci taarixu njàng mi fan la bàyyeekoo ci ndigal li waaye taxawaay bi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir am na ko ci ni nga xam ne noonu lay dajalewaatee kilifa yi nga xam ne saa su ne dañu daañu dajee ci résidence Khadim Rasoul gën a saafontewaat waaye gën a rataxalaat li nga xam ne moo jëm ci mbokk yi ñu ànd kàddu yi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir ki nga xam ne moom moo di Serigne Mahamadan moom Serigne Abdoul Ahad liggéey la boo xam ni kilifaam yi ko jiitu ku ci nekk daa nga ci liggéey ci xasida yi liggéey bu yéeme waaye nag moom daf ci am jagleeg boppam waxoon naa ni e, Cheikh Abdoul Ahad bi mu fi nekk ci ay jamonoom e, daana ko teg ci biir këram ba ci jumaay Tuubaa ci sax xasida yi defoon ay rajo ci kër gi yenn yi mu def ko teg ko alaaji moo doon di ko saytu bu di gunee ci surtout weeru koor nii ko Cheikh Mountakha di dundalee la ko daan defalee ba bët set waaye nag jagleeg Cheikh mu taxaa nag mooy bi mu agsee ci weeru koor yu mu sos fi lii andi isbu tarxee di leen ko loo ànd ko njabootu Sëriñ Tuubaa gépp nag waaye nag boo gisee tey nun ñii di ay taalibeem laa mën a wax sax doon wax ay rakkam ay taalibeem ñëw fii di ko ànd ak moom di ko dundalanteeg moom mooy danoo xam ni ngërëmul Sëriñ Tuubaa li nuy wut ak di ko sàkku lépp mu ngi ci Seex mu Muntaxaa mu ñëw nag ànd ci rafetlu ko ndax wóowu ci kenn waaye lu baax moom ku ci teg sa bët boo cay dem kenn du la woo. ko dundal fii ci biir kër Cheikhul Khadim te Cheikh Mouhamadou Moustapha waxoon na suñu Buxaari ne ko sabaay baay de nee na ma jaamu yàlla baax na fu ne waaye sakkane na Tuuba kon lii Cheikh Mouhamadou Mountakha def ngir dundal la nga xam ne kilifaam yu tedd ak waajuram yu tedd doon nañ ko def mooy lii mu defee ndax Serigne Touba fu mu mos nekk fu ne. bu weeru koor accès lu mu daa def da ko yokk ba ñépp xam ko bu dee lu ak ku ne xam ne tabuk tabuk tabuk sëriñ bi waaye bu weeru accès koor loo ko laaj mu jox la ko ne la gan sama weeru teel bi koy waajale kon nag njabootu Sëriñ Tuubaa gépp te njabootu bi ñu ko waxee ñëpp ci leen tàbbi ñu ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mi fi Sëriñ Tuubaa suñu borom dëgëral ko kattanal ko ba mu jiite ko lu yàgg ndax jataay bi itteel na ko te ñor na ko te ci yàlla def na ci ab jataay bi ci ko suñu borom dogale man nag maam ci sama tawféexi bopp joo xam ne yàlla def na ba nga xamee ne rod na ci xelam rek te muy loo ci sëriñ bi la bàyyi ko man la ci jëkk waxal booba suñu aatu moo fi nekk mu yónni ma ci moom moo wax ko xalaat ni mu ko bëgg a muy barab bi maanaam bu ma sañoon itam weer yëpp ñu di ko ànd ngay ne sama wet ak njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp di ko dundal ba yàlla def na fii may toogee nii ci ba moo waxoon Serigne Moussa ne ko bu ma sañoon Basiiru toogee nii ci sama wetu ndeyjoor ñi moo ko tëralee nii jataay bi doxee ba nagani kon la tawfeex lay joxe rek di kon dañ koy ñaan rek di ñëpp suñu borom jégge leen te defee leen mbokk yi lii lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen doon baaxee mu nekk ñetteel bi numéro ci biir weeru koor gi fii ci grande mosquée bu Touba ci juróomi fan yu nekk tey nag dañ leen di eh, tàggoog eh, njàng mu am solo mi nga xam ne Serigne Ablaye Seck eh, amal na ko ginnaaw boo xam ne ñëwoon na fii ci grande mosquée bu taw Touba àndoon ak waa daayira mu xadamatul xidma liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fi amal saa su ñu ànd teelu njàng moomu dig leen daje incha allah fii ak juróomi fan ci yeneen xibaar yoo xam ne day bàyyi ko fii ci Touba wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. في الغبي فانكاري من فائرا أبابا مكرما بخير